maa ngi bamtuwaat rek li ma njëkkoon wax di jégalu ci retard bi euh, dama doon wax ni ndaje tey bii ndaje la bu am solo ci man ak ci pexe yi may jéem dinaa ci ñëwaat léegi waaye bala may sori dafa am ñaari kilifa yoo xam ni faw ma jukki leen ci mbooloo mi gërëm leen sant leen bu baax parce que nag jafe na ñu gis leen ci ndaje yu mel nii. muy sëñ Assane Gueye laay mi nga xam ni président présenté nañ ko léegi ak sama xarit di sama wëllëre di koo xam ni Sénégal yépp a ko xam murit yépp xam ko muy Oustaz Faye di sama kenn ci man di koo xam ni lam ma daan wax toujours dëkk na ci di ko firndeel waaye gën na koo dëggal tey kenn ku ne xam na ni ñaar ñi ma lim amuñu par parloo ci wàllu politique maanaam nekkuñu ci benn parti parce que nag nitu ñépp lañ mais lii ñu def tey wane na ni ñu am wóllëre lañ doon samay sëriñ doon samay xarit ma xewle tey ñu bàyyi seen ite ñëw toog ak man loolu lu rëy la ci man ginnaaw bi ma leen sante gërëm leen yéen mbooloo mi fi teew sama cant jëm ci yéen am na fa muy tàmbale waaye amut fa mu yéen parce que nag woote yomb na waaye woote ñu wuy si la ku ko am rek war ngaa sant yàlla bu baax kon sant naa yàlla sant leen yéen ñi nga xam ne yéen a ñëw wuy tey nag mën naa wax ni mooy sama njëlbeenu daje ci wàllu politique fii ci cees ginnaaw quelques réunions yu yem yoo xam ni woote naa ko fi woote ko ak ñi nga xam ni ñoom laa bokkandool ñu sos mouvement bi fii à woote ko également waxtaan ak jeunes yi nga xam ni jeunes yi APR lañ ak jigéeni APR ak responsable yi APR à part loolu mën naa wax ni tey c'est la première réunion du mouvement Doolil Macky fii à Thiès ci mouvement boobu nag laa bëgg a ñëw parce que bu ñu nee mouvement dollil Macky mu tuur bi dafa leer nëbbatuwul làqutuwul ñépp xam nañ ni mouvement boobu dañ koy yëkkati pour jàppale président Macky pour que doole bi mu am ay Thiès gën a yokku gën a yaatu mbooloom gën a yaatu su ma nee mbooloom gën a yaatu nag ça di dire am na fi mbooloo te wax tamit day leer parce que bëgguma lenn loo xam ni day dox sama diggante ak ñi nga xam ni ñoo fi toogal Macky Sall di ko liggéeyal ci wàllu politique ñooñu ay responsable lañ moo ne sax bi may sos mouvement bi waxtaan na ak ñu bëri ci ñoom ku mel ni docteur Augustin mi nga xam ni moom la président dénk département de Thiès ci wàllu politique dem naa toog waxtaan ak moom wax ko sama mébét mu rafetal ko lool le troisième vice-président de l'Assemblée nationale Abdou Mbow toog naa ak moom ñu waxtaan ma expliqué wu li ma tax a jóg mu rafetlu ko lool docteur Ndiaye même chose yeneen responsable yi xëy na toogaguñu mais problème mu calendrier la démarche boobu nag boo gisee ma def ko c'est parce que dafa am loo xam ni il fallait ma egge leen ko ñoom man kenn ku ne xam ne ne yàgg naa Thiès te yëngatuwuma ci wàllu politique mën naa wax sax ni samay naataangoo yi nekk fii à nekk chef de service au niveau de la région melum man maa ci dugg ci terrain politique bi loolu nag dafa am lu ko waral te loolu laa bëgg a leeral man maa ngi ñëw fii en 2011 mars 2011 nous sommes en 2016 kon maa ngi entamé sama sixième année Diop dafa xër rek jox ma dix ans fii à mais maa ngi ci sama sixième année xëy na ni mu gis ni ma jaxasoo ak wàccees Thiès miinanteeg ñëpp xëy na moo tax mu waxee ko noonu mais six ans laa fi def cinq ans yi ma fi def yëpp musuma yëngatu ci wàllu politique. parce que kenn ku ne xam na ni yor administration boole ko ak activité politique lu métti la mais lu métti nag ci góor lay dal te it nag boo dee góor dafa am sas woo xam ni suñ ko tegee ci sa kaw soo attanul it da nga jéem. moo tax may jéem yàlla def ma baaxee ma bokk ci benn audience boo xam ni président Macky Sall moo ko woote muy ay kilifa yow xam ni dañ leen a tànn pour mu waxtaan ak ñoom ci wàllu politique moom président ci boppam daal di sàkku ci ñun ñu jàppale ko sur le plan politique ndaje boobu quatre personnes ya fa jël parole ci laa bokk te ba ma jëlee kàddu la ma ko wax dama ko ni day man de caajaay laa nekk fa yëngatoo ci wàllu politique. dinaa la fa jàppale ci kanamu directeur de cabinet El Hadj Omar Youm maag moom ñoo bokk nekk caajaay yàgg di def politique mën na ko caajaay ba ma nekk bokk ko ak sa directeur de cabinet sama kéemtulaay kàttan dinaa ko def pour jàppale la fa mais foofu sax amatul problème parce que caajaay Omar Youm ak Pascal bu ñu àndee ci képp ku xam caajaay xam nga ni problème amatu fa ma ne ko nag dinaa la jàppale Thiès ci kaw soo ma ci joxee ndigal président interrompre samay wax ne ma jox naa la ci ndigal kon lii may jéem nii cees mën naa wax ni jëfe ndigal moo ko jur loolu nag bu amee waruma ñàkk a déggoo ak ñi ko fi toogal di ko liggéeyal nekk APR looloo tax li ma njëkk def mooy damaa sol sama daal dem gis leen kenn par kenn wax ak ñoom ñoom it nag ay la yéwén ñu rafetlu lii may jéem parce que nag la ma leen wax lu yomb a dégg la ay jàmbaar lañu lool liggéey nañ yaatal nañ mbooloowu Macky Sall parce que nag képp koo xam ni mën nga am une lecture de l'histoire politique de Thiès di nga xam ni ca njëlbeen yi amu foon doole mais progressivement mi ngi yokk dooleem kon dooleem buy yokk ça veut dire ña amoon doole seen doole ngi wàññeeku loolu logique politique la te loolu kenn liggéeyu ko lu dul ñi ko fi toogal waxtaan it waxante dëgg la mais seen liggéey lu mu bari bari ba léegi président Macky Sall gañeegul Thiès commune kon liggéey bi des na liggéey bu desee nag kenn ku am doole te am yéene war nga cee mën a bokk dugal ci sa loxo foofu laa dugalee sama loxo ma ni waa APR yenn responsable yi damay dalal seen xel premièrement man dugguma biir pa APR dugguma ci parti bi mais dama sos benn kuréel bu ñu waxee mouvement doolil Macky ma samp ko caajaay samp ko dans le Diobass ana waa Diobass ñu ngi ne toog fas yéene nag samp ko dans la commune de Thiès parce que nag Thiès kenn moomu ko loolu laa fas yéene def ma ni leen na seen xel dal képp koo xam ne militant APR nga soxlawuma la ci sama mouvement man ñi ma soxal mooy ñoo xam ni mosuñoo def politique sama jëmm ak sama jikko doy leen ñu jàpp ci man ma jàpp ci Macky ak ñi nga xam ni ñu ngi ci yeneen parti ñu fa seen bopp wala daal lëndëm lëndëm am na ci ñoom wala bàyyi nañ ma wax ak ñoom pour que ñu ñëw ñu dooleel président Macky Sall man ñii ñooy samay cible ñooñu laay wut ñooñu laa bëgg indil Macky Sall dollil ko moo tax mouvement bi tudd mouvement dollil Macky ma ne waa APR boo gisee ma ne leen bëgguma militant APR ñëw ci sama mouvement ndaali kay soo ko bëggee feesal doo ci tànk di ci sottiwaat da ngay dem rooti ñëw sotti ci ñu xam ne yokk nga ci dara loolu moo tax man soxlawuma militant APR ma wax ko mu leer leneen la ma leen wax également man ñëwuma cees pour xëccoo ay responsabilité man dama ñëw rek pour jàppale président Macky Sall pour dooleem gën a yokk bu dee responsabilité rek man li ñu ma gàll diis na lool ci man kenn ku ne xam na ko ku ñëw sama bureau tey fekk la fa ñëw ci ay personnes di nga xam ni aw ma jot bu bari sax mais sama yéene ci Macky Sall nag rëy na rëyaay woo xam ni sama sas professionnel lu mu diis diis nangu naa cee dolli def ay pexe pour mbooloom gën a yokk oustaz lii mooy sama mébét te ma jot ci ndigalu. président Macky Sall. président yemul foofu nee na ma bis boo demee ba taxawal sa mouvement ba ngeen am seen bureau dinaa leen recevoiraat ci loolu nag laa bëgg a ñëw. oustaz nga baal ma yaa ngi dem tuubaa nii moom mii dafa waroon a xëy dem Touba yendu ji fa mais ba ma ko ko waxee dafa ni dinaa toog ba sa organisation jeex ma soog a dem kon loolu aussi maa ngi la ciy gërëm di ci sant bu baax donc man li nga xam ni moom laa fas yéenee def te loolu tàmbali nañ ko ci biir Thiès. am na kilifa yu bari yu fi teew yoo xam ni discrétion lañ bëgg sax bëgguñu ko leen tudd parce que kenn mosu leen a dégg ci wàllu politique bari na ñii may jàkkaarloo rek c'est l'association des retraités des sapeurs pompiers responsable politique bu leen seetiwul amul ñoo sol seen daal ñëw ci man waxtaan ak man ne ma fas nañoo yéen a ak yow ci wàllu politique mais du dëkk am fi ay hommes d'affaires yoo xam ni liggéey rek lañu xam. ku mel ni gisee gérant Madiba koo xam ngeen talul politique mais nangu na sol daalam jàpp ci liggéey bi nga xam ni moom lay def ak ñeneen ak ñeneen soo gisee nag ma sos mouvement dafa am kilifa yoo xam ni xejuñu ci par parparloo dugg ci parti politique am na ñoo xam ni xejuñ ci am ñoo xam ni buñ jógee ci parti bugg ñoo dem ci beneen parti ñu leen di wax transhumant ñu mel noonu nag mouvement bu mel nii dafa am solo ci ñoom parce que dañ ci gis seen bopp man cee yëngatu te kenn du leen ji euh, wax ni dañoo far wala dañoo transhumé loolu mooy importance mouvement beneen importance bi mooy mouvement bi fu la neex nga taxawal ko man su doon APR laa dugg tey dëkk caajaay di fa milité su ma ñëwee Thiès bëgg a milité ci APR responsable APR yi ñoo may wax ah yow de li ngay def baax na loolu waaye nag suñu samoo sañoon nga yem ci sa caajaay fee fa ngay milité te muy dëgg it loolu nag pour moytu ko damaa créer mouvement fu ma neex taxawal ko parce que c'est un national incha allah ci weer yii di ñëw sax mouvement bi dina taxaw à Paris bu soobee yàlla parce que dem naa fa dinaa fa delluwaat te dinañ ko fa taxawal am nañ ci ay contact déjà donc oustaz liggéey bi loolu la ordre jour bi nag ginnaaw mbooloo mi mën a daje mën a xamante parce que ñu ci bëri Babacar rek la ñu waxal daal di somb liggéey bi commencé di def recensement ci seen i ay fiches mais mosuñoo daje ñoom ci seen biir gisante xamante te loolu dafa am solo. loolu moo nekk premier objectif u ndaje bi deuxième objectif bi mooy ñu présenter leen sunu liggéey fi mu toll. troisième objectif mooy ñu élaborer benn programme boo xam ni nag dañuy xel di wër koñ yi di installer les comités du mouvement Doolil Macky lii moom moo ñu tax a jóg bëgg naa aussi bala ñu fiy jóge ñu am li ñuy wax un bureau provisoire parce que ndaje bu mel nii. Euh, man maa ko piloté mais loolu lu ma jafeñ la xam ngeen sama liggéey ni mu xate comme nag mouvement bi amagul bureau bu définitif njaayum carte bi pareegul amaguñu bureau bu taxaw mais mën nañoo tànn ay nit ñu sawar ñoo xam ni fileeg ba ñu am un bureau définitif ñoom ñooy constituer li ñuy wax un bureau provisoire bureau boobu nag du pal mais liggéey la wàllu organisation wàllu communication yooyu surtout coordination foog ñu taxawal bureau provisoire boobu comme ça yu mel nii bu waratee am man sama bureau laay toog ñoom ñu organiser li ñu organiser euh, lii daal sëñ Assane moo nekkoon waxtaan bi may gërëm bu baax nag les jeunes yi nga xam ni ñoo nekk APR euh, am na ñu ci ñëw ci salle bi amul lenn loo xam ne maa ngi koy def ñoom ñu wute ko dinañ ci jàpp dinañ ci dugal seen loxo ku mel ni Birane ak ñeneen ñi ñu àndal vraiment maa ngi leen di remercier bu baax bëgg naa aussi ñi nga xam ni. ñu ngi woon ci yeneen parti te am na ay jeunes yoo xam ni yeneen parti lañ nekkoon duma leen lim bëgg naa ñuy tàmbalee waxtaan bi nañu jël parole wax clairement li ñu ma wax ci sama bureau parce que bu nit ñëwee nag ne la man maa ngi woon ci diw waaye gisatuma fa sama bopp dégg naa la doy nga ba ñëw naa ci yow loolu biral ko ba ñëpp xam ko ñëpp xam ni diw ak diw ñooy ànd di liggéey loolu aussi lu ci am solo kon maa ngi leen di dafa doon mouvement boo xam ni mouvement politique la ñu ngi ko tuddee mouvement doolil yi li ko tax a jóg mooy fexe ba mbooloo mi yi Sall am ci biir Sénégal mais particulièrement à Thiès mbooloo boobu gën a yaatu gën a bari loolu moo tax man responsable APR yi ma rencontré li ma leen njëkk a wax mooy man soxlawuma militant APR dugg ci sama biir mouvement parce que ni ma ko waxee léegi misaal la bu leer ndaal soo bëggee mu fees doo ci tànk di ci sottiwaat da ngay dem rotti ñëw di ci sotti loolu moo tax man sama objectif mooy fépp fu nit nekk te mosoo politique politique mosulaa intéressé sama jëm bu la doyee dinaa wax ak yow ba nga ñëw ñu ànd jàppale Macky Sall képp koo xam ne également yaa ngi ci beneen parti moo xam parti opposition la wala parti boo xam ne en tout cas wute na ak APR su ma mënee wax ak yow ba convaincre la ba nga ñëw ci sama mouvement ñu ànd dem dooleel Macky ma def ko loolu mooy sama liggéey te defe naa ni véritablement ñu ngi ci commencé di am ay satisfaction. ana ban discours moo wuteeg seen discours seen discours moo wuteeg discours politicien li ngeen wax militant. ñu wax militant yi mooy que président Macky Sall ba mu yoree Sénégal ba léegi ay lay yéwén gis nañu résultat ci li mu liggéey. liggéey bi am na lu des loolu kenn werante wu ko parce que amul kenn koo xam ni mat na mën a defandoo lépp en une seule fois loolu d' ailleurs moo tax ñuy liggéey dans la perspective dans deuxième mandat. pour permettre au président makisal Sall sumb yu rafet yi mu sumb mu mën koo yeggali ak jàmm dina ci am ñu ci yegg am na ñu ci yegg am na yoo xam ne ñu ngi ko inauguré mais am na ci yoo xam ni foog nu may ko diir pour mën a yeggali yëpp loolu moo tax ñu bëgg véritablement mu am un deuxième mandat te liggéey bii nuy liggéey objectif yi muy visé loolu ci la bokk. wax ne politiciens yi dañu échoué ba mouvement de soutien yi parfois tey jii le président ak politique askan yi gën a wóolu exemple fii waa APR jubóowuñu ndax MDM mën na ñëw euh, nekk yaakaar président Macky Sall à Thiès. waa MDM ak APR ak yeneen mouvement yi ak yeneen parti yi nga xam ne ñoo jàppale président. ñooñu ñëpp yaakaar nañu pour président Macky Sall li am solo rek mooy liggéey bii nuy liggéey nañ ko liggéey ñun ñëpp àndandoo pour mën a dooleel Macky kenn ba a yàq liggéey bi nga xam ni sa morom mi ngi koy def parce que en fait liggéey bi benn objectif rek la mooy dooleel Macky Sall. merci mouvement bi jéggi na Thiès déjà wax naa leen ni implanté nañ ko à Thiagaye implanté nañ ko dans le Noto. dinañ ko implanter feneen ak feneen ak feneen mais fi ñu toll nii objectif bi ñu tax a jóg pour le moment mooy que ñu fexe ba biir Thiès ñu am fi ay comité yu bëree bari te liggéey boobu moom lañ bëgg a tey jii nii.